man mm-hmm. waaw Pape Alé Niang di mm-hmm. journaliste bu yëngu ci wàllum investigation mm-hmm. euh, ñu téye woon ko fi mën nañ ni ci lu jëm ci dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr wala lu ci jëm ci dossier administratif euh, ci lool lañ wax ni ci lañ ko téye ñu ñu ñu gis ni dañ ko may liberté provisoire ci diggante bu gàtt ñu dellawaat ko ci li nga xam ni moom moo di prison bi ba mu déclare li nga xam ne moom moo di grève de la faim est tamit Euh, grève de la faim grève de la faim boobu noonu mënu ko indil ay jafe-jafe. ci li nga xam ne moom moo di wér-gu-yaramam. waaw si grève de la faim mën na ko indil ay jafe-jafe moom ndaxte ku ne na ne grève de la faim dafa métti. Hmm. Euh, dina ko indil ay ay jafe-jafe moom sauf nag na ñuy ñaan yàlla rek mu teel ko arrêté euh, sinon bu fekkee ne daf ko continuer mën na ko andi ay gàllankoor te bu ko andilee ay gàllankoor ñaanuñu ko yàlla leneen maari deytaane mën na am te boo boobaa nag mën naa wax ne dinañ dinañ ñàkk élément Mm. koo xamante ne mbir mi bi mu tàmbalee ba tey mu ngi si wax wax joo xamante ne du dañ mm. voilà kooku tamit bu yoon laqee bu ko euh, bu ko bu ko yoon laqee jant bi ndax lan li nga xamante ne mu ngi koy wax si mbir mi mm. ak leneen ak leneen ñu gisee ne peut-être ne lii ah mën na comme ñoom si si loolu leen sukkandiku moo tax ñu arrêté ko donc euh, man day li ma koy conseil li ma koy wax rek mooy mu gaa mu arrêté li nga xamante ne mooy grève de faim bi euh, jéem a xaar rek te xam naa ne moom tôt ou tard hmm. incha allah day métti rek mais dina génn te gëm naa ne bu génnee it position bu mu taxawoon sax euh, dina taxawaat position bu ka raw hmm. si lu jëm si wàllu dénoncer euh, euh, mal gouvernance bi nga xamante ne moom la Sénégalais yi di dund instant bi est que tamit grève de la faim solution la ci li nga xam ne jàpp na ni war nañ ko mën a libérer muy grève de la faim yi nga xam ne mi ngi koy faral di amal ndax gis nañ ko mhm. des fois dafay nekk ci grève de la faim bi bañ mhm. mhm. euh, waaw moom laa wax moo tax ma man li ma koy conseillé mooy mu bàyyi grève de la faim bi parce que ñu ngi ko donte ne dafa def grève de la faim sax ñoom loolu taxul ñu reculer comme ni nga expliqué ne dañ koy hôpital bu amee tuuti stable ñu yóbbuwaat ko si kaso bi Hmm. ah mën na ko indil euh, euh, euh, musiba hmm. te bu bu boobaa rek perdant lay nekk quoi hmm. voilà ñi loolu ba tax na li ma koy conseil mooy na reste muñ rek te xam ne li ma ko waxee léegi rek yàgg-yàgg moom dëgg dina feeñ incha allah Mortalla Gueye doon bëgg a tëgg li nga xam ne moom moo di benn concert am ñu nit dof ñu annulé ko moom wala sénégalais yu ci bëri dañu jàpp ni ñàkk maanaam contre gi nga xam ne contre na ko ni pouvoir bi di doxee. moo tax mm-hmm. Mm-hmm. ñi boycotté li nga xam ni. Mm-hmm. Eh, moom moo di euh, ay concert est-ce que euh, yow jàpp nga ni réellement noonu la demee ak lan moo ci yow sa taxawaay ci kii boobu noonu ci biir boobu noonu. waaw euh, bon man man naa jàpp ne. li mu ànd ak Ousmane Sonko. ak aussi li mu ànd ak Pastef. loolu man sama sama gis-gis la man damaa jàpp ne loolu moo tax. parce que c'est pas la première fois mu def lii def nag ay ati at. te yaakaar naa mësul am maanaam arrêt arrêt bi nga xamante ne def nañ ko nii. Mm-hmm. Euh, bi ñoom bi ñu waxee dañ ne xaw ma lan pour problème de sécurité ak yooyu. Mm-hmm. man yooyu ma ko bu fekkoon ne daf ko mas a def. Mm-hmm. Euh, mu débordé ah. ah boo boobaa de mu mu mu mu indiwaat ko ren pour def ko ñu ne ko non parce que daaw bi ñu ko defee dafa débordé wala daaw géej gis ngeen li gis euh, xawoon na débordé nangam ak nangam léegi cette fois-ci du loolu bu amoon sax ñu ne waaw mais mësul am ñu xëy xëy xëy rek. kii defarul ay biiram dagg jaay def lépp xam nga desul lu dul lii ñu ñu ñu ñu ñu annulé li nga xamante ne euh, préfet annulé li nga xamante ne mooy concert bi. Hmm. ñu ñuy affaire de sécurité ak yooyu bon dama gisee ne ay tappale la quoi si sama xalaat bu doy. Hmm. léegi mbay xam naa dañ koy jeexalee rek. ci hmm. euh, tournée économique bi xam naa. interview bi mi ngi bëgg a gudd. du président euh, bi nga xam président de la république bi ñu nekk di ko def. Mm-hmm. ñu gis ko fële ca Tamba. Mm-hmm. Euh, niñ ko accueillir. Mm-hmm. waaye itam euh, mu mel ni dafa bëggoon lancer li nga xam ne moom moo di troisième candidature am. waaye dafa mel ni xaw na xaw na ñàkk pexe daal ci ci ci niñ ko mën a waxee. pour pour pour jàllale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi. est-ce que tamit jàpp nga ni troisième candidature boobu. Euh, Macky Sall dana dana forcé def ko ndax ñëpp xam nañ ni bu fekkente ne constitution Sénégal bi rek lañ ko topp. Mhm. Euh, donte sax ñoom ñi ngi naan euh, mandat sept ans bi concerné wu ko mais. Mhm. Mm, constitution bi dañuy mënoo def ëpp ñaari mandat mhm. ba pare doole ci yu tegaloo. bu doon dafa dafa ni mënoo def lu ëpp ñaari mandat sept ans. waaw mais dafa ni mënoo def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo. yu tegaloo donte mandat sept ans la wala cinq ans mais. ñoom ñaar a tegaloo kon mënoo mënoo def yeneen. parce que tegaloon ndax jàpp nga ni moom. ak fi jamono ji toll. Mhm. Euh, kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko États-Unis mu ne moom troisième candidature dépendre ci constitution bi ci moom la. dépendre ndax jàpp nga ni loolu lépp boo ko tënkee. Mhm. dafay firnde li moom dana jéem a forcer une troisième candidature. Mhm. waaw comme ni mu waxee rek euh, comme ni nga ko expliqué nii si si sa euh, question bu mu jëriñ mooy bu mu demee États-Unis wax ne moom troisième troisième candidature mu ngi dépendre si moom. donc loolu bu ko waxee rek automatiquement rek même ñu journaliste yi mu ko wax. Mhm. wala boog ki mu ko wax war na posé wu la question ne ne est Sénégal kon am na constitution mhm. parce que bu demee ba président de la République yow nga def euh, révision constitutionnelle en 2016 mhm. nga tracé li nga ñu tracé li ñuy tracé teg ne ah euh, constitution bi dafa wax ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs yow nga dem États-Unis ne loolu si yow la dépendre kon moom am na lu mu nar ndax lan moo wane loolu li ñu bind si conseil constitutionnel bi bu mu demee fële leneen la fa wax. Mhm. comprendre mu nekk ne mbir moo xam ne parce que bu ñu fàttalikoo en 2011 bu muy wax naan Abdoulaye Wade euh, kilifa diine wax nañu wax ak moom ndaxte aussi li mu li mu bëgg teg Sénégal. bu ko mhm. tegee mën na andi jëye mooy boobu mu ngi wax su troisième candidature bi. Mhm. yàlla def yàlla ñu fal yàlla def ñu fal ko moom pour dindi loolu. Mhm. moo tax mu moom mu mu proposer euh, pour ñu assez que ñu def euh, euh, benn benn loi boo xamante ne lu jëm mhm. maanaam pour réviser mhm. con révision constitutionnelle bi moom ñoom ñu teg loolu ñu bind ba jubboo loolu c'était pour maanaam pour éviter président bi ñëw naan sept ans bi si la bokk wala cinq ans bi bokk si c'était pour éviter ça moo tax mu teg loolu pour dindi li nga xamante ne Abdoulaye Wade bàyyi na fi waaye léegi yow boo defee loolu après nga bëgg a ñëw taxawaat say allié ñi nga xamante ne ànd nañu ak yow. Hmm. bëgg a jaay intellectuel parce que Macky wax na ko si benn vidéo ah. Hmm. mu ne amul mbir mi amul intellectuel. li conseil constitutionnel wax dafa leer. nul ne peut exercer plus de deux mandats point. bu hmm. ne nag le mandat est de cinq ans. foofu ñi yem C1 xam nañ qu'est-ce que ça veut dire. dafa leen bëgg a wax ne à partir euh, du moment où ñu euh, ñu def révision constitutionnelle bi en 2016. ba àddina tukki mandat bi cinq ans la mhm. du dëgg mhm. donc man gisuma dara laa xam ne war na jar mu mu forcer pour am troisième mandat solo moom ni muy doxalee fan yi ak mhm. ñi nga xamante ne allié yi ñu ñi ànd ak moom gis nañ dina deuxième quinquennat yooyu nekkul ci conseil constitutionnel bi nekku fa li fa nekk dañ ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs point amul amul maanaam mbir mi nekkul loo xamante ne Euh, dañ koy jekkal naan septembre bi si la bokk wala bokk si non non amul sens bu boobaa sax mooy gën a ñaawle Ablaye Wade mm-hmm. ñu ñëpp duñu ay xale fekk nañu fi mm-hmm. mooy gën a ñaawle Ablaye Wade parce que moom daf ko wax wax ko waxati ko ay ministère am député am génne si télévision rajo wax ko waxati ko donc tey jii doo xëy xëy xëy rek bëgg lépp loo waxoon ah nga bëgg ko gas ba pare tamit bëgg a jekkal li nga xamante ne moom nga bindoon si conseil constitutionnel bi mm-hmm. voilà jërëjëf Mbaye hmm. xam naa. Hmm. dañ lay bàyyi rek ñu ngi jël sa temps nga hmm. tàggatoo ak euh, internet yi. bu defee ñu joxe dig daje ci beneen jotaay incha allah. waaw euh, li may nekk def rek mooy damay di jaajëfal euh, yow di la jaajëfal ndaxte boobu ba tey. ñu ngi waajal mbir mi. yaakaar naa war na ma deux mois boobu tey <laughs> yaa ngi si. ma di la gërëm bu baax di gërëm tamit borom borom borom ñaari sites yi Buzz 221 ak Info 221. Mhm. Euh, di lay ñaanal rek yàlla mbir mi dem nekk ay pourquoi mu dem ba nekk chaîne télévision bu mag a mag a mag a mhm. am rajo am tout. Mhm. man daal loolu laa leen di ñaanal yéen waa Info 221 ak Buzz 221 di lancer benn message rek euh, message bi nekk lenn la mooy ñu ngi dëkk ma li nga xamante ne mooy deux mille vingt et un deux quatre képp koo xamante ne nag amoo carte d'identité wala boog sa carte d'identité ñu ngi si def euh, non vote demal nga dem lijjanti loolu nga rek la ko mhm. ndax mooy li Ousmane Sonko di wax rek xeex bi yëpp li si jiitu mooy fexe ba am carte d'identité nga gàdda ko sa poche bu jour bu jotee rek ñu def li nga xamante ne moom la ñu war a def loolu laa amoon lu may euh, lu may tàggatoo di lay jaajëfal bu baax a baax kontaan naa lool lool lool si interview bi jërë ngeen jëf